bii nga xam ne dama ciy raaxaale actualité politique nationale mu am benn mbir bi nga xam ne yàgg naa ko di wax fii ci pénc bi mu jëm ci lu ñuy wax le paradoxe africain su may wax le paradoxe africain dama ci raaxaale sénégalais bi nga xam ne ñun ñëpp moom lañ doon ndaxte ñu dafa am lenn li nga xam ne moo ñuy màndargal ñun africains yi rawatina ñun sénégalais yi mooy maanaam lu ñuy wax di bëgg di bañ on n'aime pas on laisse pas mooy maanaam gis nañ coow lii nga xam ne moo wulee ñaay Afrique yépp mu jëm ci lii nga xam ne mooy réew mu ñuy wax France ak ay njiitam kii ci mujjee mooy Emmanuel Macron gis nañ ne lii nga xam ne moom moo xew démb barki démb bi nga xam ne Abdourahmane Tiani génn na dafa joxat bi ay baaraamu tuuma ne euh, lii nga xam ne mooy réewum Bénin bu Patrice Talon France lay liggéeyal pour mu déstabiliser lii nga xam ne moom mooy réewum Niger ñu dégg Ibrahima Traoré moom tamit joxar bi ay baaraamu tuuma ci Alassane Ouattara bu Côte d'Ivoire wax ne France lay liggéeyal pour mu déstabiliser lii nga xam ne moom mooy réewum euh, Burkina Faso ñu dégg ñu dégg encore ay ay malien di wax ne ginnaaw bi ambassadeur ukrainien bi génnee ne France tamit dafay xeex malien yi ba loolu tax na ba ministre des affaires étrangères euh, bu réewum Sénégal convoqué ambassadeur réewum Ukraine pour wax ko ne ko agissement yi nga xam ne da koy amal loolu duñ ko nangu léegi nag man jàngat bi lenn la dafa am benn coow li nga xam ne moo am ci réewum Sénégal muy coowal voile ñu déggaat ci encore ne France moom mooy salfaañe France mooy jaxase société sénégalaise ma ne leen réewum Mali barki démb ginnaaw bi nga xamee ne ambassadeur ukrainien dafa génn di wax ne euh, euh, maanaam ñoom ñoo jàppale terroristes yi ak rebelle gi lii di réewum Mali dafa euh, rompre lu ñuy wax ay relations diplomatiques am ak réewum Ukraine de façon immédiate mooy maanaam amul sax lu ñuy xaar mooy maanaam relations yi rompre nañ ko te effet immédiat la lii mooy fulla ak fayda mënuñu nekk ci réew bi nga xam ne ñun lépp li nga xam ne moo am Afrique dañuy wax France la te man je ne vois pas les choses être ci réewu Mali ñu ngi changé dàq nañ armée française ñu ngi commencé changé ay mandarga français te sañ sañ-sañ la te loolu wax naa leen ne Paul Kagame moo ko njëkk a amal ci réewam Paul Kagame ginnaaw génocide bi moom moo déjjati langue nationale française commencé indi yeneen ouverture amal ko ci fii nga xam ne moom mooy waaye fii discours bii nga xam ne dañ koy dégg Afrique mooy maanaam ñëpp ne lu doxul euh, Afrique yëpp ak lu bon Afrique yëpp France la te rawatina fii nga xam ne mooy suñu réew fii di Sénégal ndaxte wax nañ la liy jaxase école u école école suñu école publique nationale mooy réewum France moo ci dugal loxoom te ci France la ñuy roy moom ay mbir yi nga xam ne c'est antinomique mooy maanaam dafa contradictoire dafa paradoxal loolu moo tax ma ne le paradox et africain yaakaar naa ne Sénégal am na souveraineté am Sénégal tey bu ko neexoon mu déjati langue nationale française comme langue officielle ci réewum Sénégal defaguñ ko. Sénégal bu ko neexoon mu rompre ay relation diplomatiques ak France comme ni ko mën a defee defagu ko li ñu gis lenn la am na kii nga xam ne moom may njiitu jëwriñ di Ousmane Sonko depuis sortie officielle yi mi nga xam ne amal na ko yëpp dalal Mélenchon yëpp il tire à boulet rouge sur la France mooy maanaam. lépp li nga xam ne euh, suñuy valeur la France moo koy jéem a yàq ba ci sortie bii nga xam ne moom la mujjee def ci beneen wàll bi ñu gis kii nga xam ne moom mooy président de la République du Sénégal di son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye amal na ñaari sortie France léegi nag sénégalais foog ñu xam lu ñu bëgg te yu jëfee ko assumer suñuy rest suñuy suñuy décision parce que loolu la ñuy wax courage politique mënoo ne diw suñu noonu la diw bëgg lañu lu baax tey la Auchan yi gën a bëri ci réewum Sénégal chaque jour boo yeewu Auchan yaa ngi ubbeeku fii ne fi law ni xuus ni gàññ tey la coopération française bi gën a dox ci réewum Sénégal te fii la am lu ñu wax France dégage ñu koy mandargal di ko woy ba mu ba mu law àdduna wërngal këpp France dégage boobu noonu nag dañ ko war a matérialiser bu fekkee ne jàpp nañ ne lépp li nga xam ne doxul Afrique francophone France la jot na ñun ñu jël suñuy responsabilité maanaam ñu assurer la rupture totale avec la France parce que mënuñu nekk di ŋàññi benn réew bi nga xam ne. moom ñu ngi continuer di lëkkaloog moom boobu léegi loolu mooy li may wax le paradoxe africain ñun dañuy bëgg ba pare di bañ dañuy wax ne diw dañ koo bañ diw neexuñu ba pare ñu continuer di jëflanteeg nit ko nga xam ne moom la ñu wax ne moom lañ jàppee comme suñu noom te lii nga xam ne ce sentiment anti français bii nii dina indi guerre civile Afrique bi nga xam ne soldat français du ca laale mooy maanaam genre mbañeel bii nga xam ne moom la ñuy wax ne moom lañ bañ France dina dem ba ñun ñuy xiiroo ko ngaay di rayante te France fan lay toog dans la vie il faut s'assumer il faut être responsable te man damay dox ci lu ñuy wax logique am nay démarches yi nga xam ne africains yi dañ koy jël sa ne repose pas sur la sur aucun aucune logique loolu moo am parce que tey mënoo saa yoo génnee nga xalab France nga ngàññi France ba pare si yeneen ak yeneen mbir yi ñuy gis relation yi nga xam ne mu ngi continuer di am di law loolu paradoxe la soit on est avec la France soit on est contre la France soit on coopère avec la France on rompt toute relation ou coopération avec la France la mooy paradoxe africain bi nga xam ne moo ñuy jural lépp li nga xam ne tardement la wala lépp li nga xam ne dañ koy jànkonteel sunu sunu dund ñun africain yi parce que on n'ose pas s'assumer mooy maanaam on va pas jusqu'au bout de nos idées mooy maanaam li ñuy incarner wala lu ñuy xeex ñemewuñ ko dañ koy xeex à demi à demi mot wala à xam lu ñu koy waxatee te loolu dafa war a jeex Sénégal léegi nag lii nga xam ne moom laa bëgg a tëjee damay jox conseil lu ñuy wax coalition Diomaye président xam ngeen ci réewum Sénégal yàgg naa ko wax askanu Sénégal askan bu mature la wax naa ko ay yooni yooni yoon ci samay vidéo askanu Sénégal le Sénégal a un grand peuple très mature qui qui ne loupe jamais les rendez-vous de l'histoire loolu dama bëgg ngeen comprendre que xam ngeen ne ñu ngi jëm ci échéance bu fekkee ne maanaam euh, euh, dañoo tas assemblée nationale ñu war a tëgg assemblée nationale bu bees yéen coalition Diomaye président boo leen mayul majorité da ngeen koy dégg doo leen ko am lu leer laa leen di wax boo leen moyul majorité da ngeen koy dégg te doo leen ko am li may indi comme jàngat nag dama koy sukkandikoo si son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar fay moom mi nga xam ne Ndiaga Ndiaye cosaanoo nekk séeréer akkan moom ba muy doon président du askanu séeréer ñoo ko fal tukulóor joola wolof soose manjak alpulaar ñoom ñoo ndoo fal ko Sénégal ab ethnie du fal ab président de la Sénégal tarixa du fal président de la république Sénégal diine du fal président de la république askanu Sénégal rawatina nag ñi ñu duppee la majorité silencieuse mooy sénégalais yi nga xam ne bokkuñu ci benn chapelle politique ñoom ay citoyens yi nga xam nañ dañuy toog di observer décision bu waree am nañ ko jël ndaxte Sénégal. lii nga xam ne moom la Macky Sall bëggoon def fii avec toute la la toute puissance de l'État sénégalais yi ñu ko lii nga xam ne moom la Abdoulaye Wade bëggoon def en son temps sénégalais yi mayuñu lii nga xam ne moom la Abdou Diouf bëggoon def en son temps sénégalais yi mayuñu ko ak nit ku mu munti doon ak daraja boo munti am ak popularité boo munti am am na ay sook li nga xam ne ci la askanu Sénégal toog mooy suñu vivre ensemble suñu cohésion sociale képp ki nga xam ne danga nga ko bëgg a salfaañe di nga jàmmarloog askanu Sénégal te ñii nga xam ne ñoom ñoo nekk ci réseau sociaux yi di semer le discorde et la division ñooñu nañ xam ne ne alors que descente ci may wax ne celui qui joue avec le feu se brûle là avec le feu kuy foowee safara safara dina la taal balaa ngaa taal kenn balaa daay bi di yegsi si keneen si yow lay njëkk taal ñu tegaat si ne celui qui règne par les armes périra par les armes mooy maanaam képp ki nga xam ne yow fitna ak ngànnaay nga bëgg du ne ngànnaay dina la sàkk donc ñii nga xam ne ñooy ay apprenti pyromane bëgg jël réewum Sénégal bëgg fee indi ab daay daay bi nga xam ne ñoom lay njëkk taal dina non seulement dina ñoom lay njëkk taal ba pare yàqaale lépp li nga xam ne maanaam suñu cohésion la suñu suñu suñu sosi sénégalaise la donc nag nañuy wax jàmm na ñuy dox jàmm lépp li nga xam ne maanaam dafay yee fitna fekk nit ci palaasam nga bugg koo imposer ay mbir loolu yaakaar naa ne c'est pas sénégalais sénégalais lu mu xam mooy jox cër képp ki nga xam ne da ngaa bokk ci askanu Sénégal mooy maanaam dans tout sa diversité dans tout sa différence mënuñu nekk ci réew mi nga xam ne dañuy commencé ne dañuy dugg ci ay ay domaine jàmbur naa ay privé amul ak ay constitution amul lii mooy mooy maanaam artu bi nga xam ne maa ngi koy artu coalition Diomaye nañ def attention askanu Sénégal ku yaakaar ne da nga am cinquante pour cent moo tax mu may la yenn sañ-sañ ndax sa bopp Sénégal ñiy votel Sonko ñu si bëri si ñoom wala coalition Diomaye ils l'ont fait à contre-cœur parce que gis nañ fi tout sauf am na nit yi nga xam ne dañ lay votel te gëmuñu sa projet man mii nga xam ne si j'étais engagé dans la politique j'ai convaincu beaucoup de gens yi nga xam ne ils n'étaient pas convaincus te tey ñooñu ils ont raison sur mooy maanaam commencé nañ di dëgg ci man ndaxte ils avaient des craintes craintes yooyu nga xam ne dañ ko doon am nag jëm lii nga xam ne dañ doon gis tey crainte yooyu noonu mu ngi matérialiser mooy maanaam ñu ngi koy teg seen bët mu ne fang ñu koy dégg ñu leen koy wax di leen ñi di leen saaga ñi di leen xas te loolu du Sénégal donc képp ku yaakaar ne popularité nga am moo tax ba nga yaakaar ne war ngaa mën a déstabiliser lu ñuy wax sookul euh, cohésion sociale bi ndax nga sabab seen xarit la woon Léon Baltasar le caméléon di leen ñaanal kenn du lu jaam ak